xew ci réew bi pour man ak tiitaange laa ci am parce que plateau bi rek déjà ak yeneen plateau yi may wane yi may seetaan wane na ni Sénégal dafa nekk ci benn guuta goo xam ni euh, solution bi ci boppam solution crise bi dafa nekk ci crise euh, dafa nekk réew moo xam ni ci ay conséquences euh, la ñuy taxaw di wax mais causes yi kenn du ko wax ba pare ñi nga xam ni ñoo war a permettre nit ñi muy yéen journalistes yi ak plateau yi nga xam ni ñoo ëpp audience ci réew mi ñu war a mën a permettre doomu aadama yi nga xam ni ñoom faruñu ci benn bor mooy cause du problème pour Sénégal mën ci loolu de faru kenn faruñu ci ñaari boor yi laa wax. xam nga néew ma ñàkk far ñaari boor yi waaw politique. mooy ñi nga xam ni ñoo yor nguur gi ak ñi nga xam ni ñooy kujje te ñoom ñooy togg complot bi nga xam ni moo indi réew mi dugg ci gudda affaire bi man damay taxaw ci cause bi li waral coow lii yëpp nga xam ni maanaam ay tappale la yoo xam ni politiciens yi ñu ngi koy def ba dugal ci réew mi te xamuñu nu ñuy def ba génn ci mhm. du lenn lu dul président Macky Sall mi nga xam ni moo jiite réew mi ci première mandat mu am ñaari candidat yu mu éliminé xoxotal leen éliminé leen muy Karim Wade ak xalifa euh, Sall bi mu gañee élection yi mu def réconciliation bu mu def ak président Abdoulaye Wade ca Masalikul Jinan ci kanamu xalif général de Mouride mu promettre ko ni mandat bi jàll de jàll na waaye bii di ñëw Mbacke Karim Wade dina bokk Khalifa dina bokk. yaa ko fekk. non mais loolu mooy li am déglu ma rek s'il vous plaît monsieur. loolu la ko promettre. s'il vous plaît monsieur li ma wax nii c'est important. pour ngi wax fii man laajuma leen. non la invité dama lay laaj. Mhm. loolu la ko man ko fekkee léegi yow tey bu ma la doon boo bëggoon ma indi waaw boo bëggoon ma ma indil la ko. non dama lay laaj maanaam sama analyse lay joxe. Ah, am naa droit analyser ci ci ci li ma jàpp ni moo waral coow. ok exactement bi mu paree ci réconciliation boobu mu def les foyers religieux fu ci nekk mu dem fa. ñu félicité ko ci lim séq ak Ablaye Wade ba pare mu rëy réitéré leen li mu wax ci mandat wu 2024 bi Khalifa dina bokk Karim dina bokk. yàlla dogal ñuy continuer di derule ci diggante bi am benn leader politique bu ci bu ci am doole boo xam ne bokkoon na ci élection 2019 mais jàppuñu woon dooleem dana agsi fii muy Ousmane Sonko ñu jaar fa ñu jaar ak. Khalifa Sall ak Karim jaar ko faak moom peuple bi peut-être résister moom it mu nekk benn politicien boo xam ni dafa ñëw fële fële ca làng ga ni cëpp ne lay ari mu réussir à embobiner la moitié de la jeunesse de ce pays ñu topp ko parce que dafa jaar en dessous de vulnérabilité wu sénégalais yi nga xam ne dañoo issus de l'éducation traditionnelle de base gisuñu seen bopp ci réew mi moom it ak tappaleem jàpp mu am doole ñu sànk ko tëj ko ci kaso bi bi ñu ñëwee ba élection war am moom bokkul koo xam ni sinti nii moom it mu ngi woon ci kaso bi ñu koy wax Bassirou Diomaye Faye mu yées ki nga xam ni moom lañ doon bañ mu bokk loolu moom moo indi coow lépp ñu bëgg a lijjanti nan la ñuy def ba génne ko président Macky Sall tamit conseil constitutionnel bi nga xam ni contrôlé wu ko peut-être am lu mu lu ko échappé certes Khalifa bokk na waaye promesse bi mu defoon ak nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi rëcc ko ci ah, ci ci Karim Wade mu bëgg koo dab dabaatal moom moo indi coow bi ñu tëgg nag seen benn complot ci biir jaarale nañ ko ci ci ci euh, mini ancien ministre bi nga wax ni moo dugal affaire projet de loi bi ci au niveau de l'Assemblée nationale accusé nañ kee ni moom moo tax ñu génne kii waaye loolu yëpp ñoomu nen rek ñoom politique yi ñoo ñuy comploté léegi nag ci biir complot bi dafa am ay scénario yu dessiné wu scénario yi mooy ki nga xam ni moom it moo moom parti bu bu mag bi ëpp doole dañu bëgg a tabb numéro 2 te numéro 2 li tax parti bi jàllut ci réew mi mooy li ñuy wax ni mooy lu àndut ak diine réew mi kooku moom mooy représentant bi ñoom it bëgguñu kooku jàll moom it ñu dem fekk ci biir kaso bi ni ko yow dëgg la yaw lañ doon amal problème mais yaa tane ki nga ki la bëgg a demal.